C'est bon, Marc Euh, donc cant ak ngërëm euh, ñeen na leen encore une fois ñu nekk fi nga xam ne moom mooy Colobane ak coowal bi nga xam ne mooy coowal déguerpissement fi ngeen gis nii mooy le marché de Colobane fi nga xam ne foofu la maquette maani di nekkoon maanaam ay ndaw réew mi euh, jugee si dans le régions wala dans les quartiers du pays Sénégal dans la banlieue ñëw di jaay téléphone ak ñu ni mel maanaam ñeen également teg seen table soxna Lalla ñëw ut rek leen lu ñu am leen lu ko waral dañuy leeral avant ñi neen jox kaddu avant may jox sax Lalla mu daal di wax ak ñi nga xam ne tey nekk di les marchands ambulants ñoom ñi ne ñoo nekk si euh, li nga xam ne moom mooy euh, ne tey ñoo réunir fii nii nekk si quartier bi ak Colobane ne moom mooy sa déguerpissement avec la complicité ak ñi nga xam ne tey mooy le maire ak ñi nga xam mooy les collectivités territoriales donc loolu moo tax tey le premier ministre ministre Sonko war a ñëw def euh, rencontre ak ñi nga xam ne tey moom mooy les marchands ambulants pour ñu wax euh, li nga xam ne moom mooy ñoom lu leen métti ñu daal di koy déglu ñoom tamit également ñu wax li nga xam ne leen moom mooy yëf yi donc la ma bàyyi la rek euh, mais laataa loolu euh, comme niñ defee ñoom ko war a defee suñu liggéey dem ci li nga xam ne moom mooy la vraie version des faits mm-hmm. préciser ko mooy ñoom si boppam ñoom ñi fi nekk ñoo sàkku déguerpissement bi euh, pour que tout simplement ñu mën a am yoon bu ñuy circuler ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoo ci alentour yi euh, ni démb nag gis nañ poste bi nga xamante ne euh, PM def na ko muy le premier ministre Ousmane Sonko ñëw rencontré ñi nga xam ne ñoom ñooy marchand ambulant yi bu ko defee ñu xool ban situation wala boog naka la ñuy def ba régler li nga xamante ni moom mooy mbir mi mais en tout cas lu ci munti xew rek mooy li may wax nañ ci xool intérêt Sénégal parce war nañu di bàyyi xel bu baax a baax que ni intérêt réew mi mooy intérêt ñëpp. mais aussi façon euh, voilà effectivement parce que ñoom ñoo sàkku déguerpissement bi parce que quoi qu'on puisse dire Sénégal dafa yàgg am problème occupation illégale de la voie publique ça mhm. date pas aujourd'hui mhm. mais nag wax ji mooy comment s'y aller mhm. comment s'y ak yan perspective ngay jël ba pare balaa ngay dem ci loolu donc c'est un peu ça léegi nag dañuy dem taataan version ambulant yi déglu leen mm. le temps que premier ministre bi di yegg si moom aussi bu ñëwee mu waxtaan ak ñoom bu ko defee peut-être solution dina am parce que Sénégal moo ñu ñor te yaakaar naa intérêt Sénégal mooy intérêt ñëpp voilà kon ñu dem ñu ànd jël jël jël la réaction ñi nga xam ne tey ñoom ñooy euh, les marchands ambulants ici à Colobane le visage maquette bi donc Fall da may woon un peu a visage du du maquette ma ànd ak Lalla ñu waxtaan ah. man ay jamono ba ndaw su ma soxla doon jënd téléphone su ma ñëwee fii damay am benn 10 000 15 000 13 000 ba 20 000 fekk leen ni ñu groupé euh, nekk ay li euh, nga xam ne ay doomu réew mi lañ mhm. ñu jaay la téléphone waaye mais est-ce yi ñuy jaay fii wóor na ah, man yàgg naa fi jënd téléphone ah ay ay ay wanteer lay nekk wala non ça ça dépend ça dépend si li nga xam ne moom nga yor salaamaaleykum xam def yaa ngi yaa ngi en direct Sénégal 7 kenn ku yëkkati kàddoom rek si si yéen ñi fi nekk yéen nekk di liggéey fii benn kàddu rek euh, waaw si li nga xam ne moom mooy tey man yàgg naa fi ñëw loolu ak sànq gis tey maquette bi non non jëluñ ko ah. ñu gis le visage du maquette mu daal mu daal di changé tey lan ah. Ah, bu ñu sant yàlla julli si Mouhamed sant sunu ñaari waajur sant ba Modou Moussa Fall mbaa yàlla lu ñu war a wax lenn kese la fii moom ay responsable rek a fi ne ñoo xam ne dañuy liggéey ñu soxla ñu yëfu kenn liggéey rek moo ñu tax a jóg te lu ñuy liggéey yëpp suñu famille moo tax ñu koy def ak suñu njaboot képp moo tax ñu koy wax kon na ñu a mën a bàyyi ñu liggéey parce que réew réew boo gis si àdduna monde entier daa am marché noir te marché noir dañu suturoo ñoom bu ñu bëggoon pour marché bi tas dañu fu baax bu ñu utalee foo xam ne ñun carrément ñu ngi fa di liggéey kon boobaa ñun duñu taxawaalu si marché bi tax nag ku ne lu mu dugal si poosam lay ut mais bu amee lu ko gënal kon du toog si marché bi ñàkk am lu ñu gënal moo tax ñu toog si marché bi te ñun marché bi la ñu am amuñu loolu kolobaan kon nañ ñu bàyyi ñu liggéey loolu rek laa amoon lay wax wasalaam ah xaw ñu ko munti def daal ñu ko munti def daal xaw ma mais ñu ko def tam bu fekkee ñu ngi may dégg nañu bàyyi ñu liggéey ndax ñu fiy liggéey ay père de famille la ñu la ñu yóbbu sàcc ñu fen ñu te ñun am ka am nañu kattan de mënoon nañ jël jaasi wala dara dem agressé ji defuñu ko dañuy liggéey te yàlla rek a tax kon nañ ñu bàyyi ñu liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey wasalaam. waaw ñu ñu jël keneen salaamaaleykum. gannaaw ñu ngi lay nuyu. waaw bi maa lay siyaar. yow fi fi ngay jaayee. waaw man maa ngi si marché bi fi laay waaw. Ah, tey mën nañu xam problème bi lan moo ko soulevé lan moo ko waral. problème bi daal ñun dañoo toog ba ay euh, vingt ñu jekki jekki rek. rumeur bi commencé daw ñu naan dañuy dindi place yi wala duñ ko dindi wala dañ ko dindi wala duñ ko dindi. mais ndax nit ki bala nga koy mën a dindi fenn tamit nga jékki-jékki ko sax. bala mu yàq ay bagaasam wala lenn. te nit ki tamit benn affaire am na bu fekkente ne tamit maanaam comme que fi nga nekk fi mu nekk neexu la tamit dafa nekk loo xam ne mi tamit maanaam bala nga koy def tamit nga waxtaan ceeg moom ba déggoo ci ak moom bu ko defee baax maanaam bu boobaa mu mën a xool nu muy def xool beneen pexe waaye doo jekki jékki rek bett doomu aadama bi rek jékki-jékki def lu la neex xam nga lii nag euh, waa waa euh, koñ bi la ak waa ma waa mairie bi waaw mais Sonko yëgut tenut xam nga li ma la wax baax. donc donc Sonko yëgul tinul. Sonko yëgul tinul mais nag dina fi ñëw 15 nag moom. dina fi ñëw 15 heures a waxtaan ak ñun jéema xool nan la ñuy def ban solution la ñu teg mais nag ñoo ngi nii daal si loxo yàlla quoi. man fi laay jaayee man man fi laay jaayee fi laay yor place comme ñëpp. mais nag tamit benn affaire am na tamit ñun tamit bu si yàlla defee tamit ba yàlla def bañ dem dem bañ tegaat ñu tamit nañ changé suñu doxalin. kenn ko ne jéem a wàññi sa taabal yóbbu taabal boo ne ba mu dee taabal un mètre sax nga wut ko teg ko du wàññi dara quoi xam nga li ma la baax bu ko defee maanaam ñun ñëpp daal kenn ku ne mën a am silo loo jàpp quoi waaye mais tamit doo jékki-jékki rek def lu la neex xam nga wax lu la neex xam nga yaa ma gën a xam. wa salaam kon kon kon ma bàyyi gars yi xool visage li nga xam ne mooy maquette bi rek. mais Matar wax waa ji wax na lu am solo. parce que nee na. Euh, ñu dem jël ko. Ah, moom su ma nee déplacé mu ñëw nii ah. parce que salaamaaleykum yéen itam téléphone nga doon jaay. man maay chef jaay téléphone même pas. yaay chef bi. man maay chef marché waaw. maanaam marché Kolde ba nag maquette mi yëpp man maa yor programme man maa dirigé. man maa leen waaw. tur bi fàttali moom xam naa di sant yàlla rek. di tamit am naqar ci li nga xamante ne moom am na fi. mu bett ñëpp. premièrement ci man mi parce que dañu dem bu ay ngoon yooyu ñu man ma dégg réellement affaire bi jaaxal ma racinement bi nga xamante ne moom la ñu amoon mu xamante ne moom moo nekk degré bi nga xamante ne moom moo gën bokkul fii à la fin ñu wax ne fii lañ song nañ ma deux fois lii boo xoo ñun mais man yëguma ci dara ma rendé compte commandant moon ma ne foo bokku ci à la veille la gis gars yëpp donc ñu xamante ni lu mu métti métti ndong war nañu am rassemblement bi nga xamante fii war nañu xamante dañu ko yëkkati suur tël su ko defee bagage nga xam ne ñu ngi foofu ñu mën ko nu nga xamante foo gis responsable kese ñoo fi nekk ñoo xamante dañuy bàyyi seen kër bàyyi seen famille ñi nga xamante ne ay célibataire sax ñu ngi jàpp li nga xamante ne borom kër nga xëy xëy di leen nii métti na lool ah man nag man li ma ci mën a def ak li ma ci war a wax suba laa ko war a def en direct ma mairie ñu xool nuñ koy organiser ba ñëpp mën a amaat jamaat ci loolu laa doon def heureusement ñu def réunion ma dégg monsieur euh, man de euh, Sonko comme mu fi ñëw ah ñu bàyyi ci loxo yàlla rek léegi moom su ñëwee tamit gis na li mbooloo ñoo fi nekk yàqu-yàqu mari na ah xanaa dina ci waxtaan parce que gars yi son nañ trop trop te wax dëgg li métti na moom waaw. lan ngeen xaar par rapport ak l'arrivée de Ousmane Sonko yéen kàddu ngeen ko bëgg a wax. waaw li ñuy wax daal moom koo xamante ne ñoom may ñu toog su nekkee développé bi nga xamante ne marché bi développé boo xamante ne kenn mënu jar man sama pare naa pour développé parce que man ci loolu la lañ ma fale mu nekk euh, ma nekk ci marché bi donc marché bi moom développé nañu ne xëy na suñu waxtaanee boo xamante ne mën ñu toogaat débris mën naa na a jakaat ñu éliminer place nga xamante ne dafa newoon boo xamante moto mënul jàll wala place yi mënul parce que foo soo gisee fii ñi fi def kenn dëkku fi mais yàquñu defaruñu donc kër yi ngay gis nii yëpp yëpp ñoo ko def marché ñoo ko def marché parce que foo kër goo gis ñetti magasin ñeenti magasin mu ngi ci buntu kër gi kon daanaka fii marché la ok merci donc donc laala dañuy ànd ñu ñu parce que dafa am image bi nga xam ne moo bëgg koy defee maanaam maa ngi koy wax bi dafa am ñoo xam ne dañuy toog fii nii ay taabul ñoo fi nekkoon. effectivement ma taaru xam nga waa ji wax na lu am solo nee na euh, tey ñoom euh, bañuñu ñu réorganiser wu. même s'il le faut sax ñu ut ay taabul yoo xam ne euh, du du du yàgg. comprendre nga mais tey ñoom xam dem nañ ba sentir que ni même bu fekkee nekkuñu si yoon sax war nañ trouver benn table ronde pour mën a ut solution xam nga kon mbir mi mooy li ma wax sànq dina neex a régler léegi ñu jël ñu jël intervention waaw ñoo ngi siyaar ku baax. daa mel tey jaaxle. waaw loolu la demee de bilaay. bilaay la ba jaaxle lool sax. yow looloon jaay. man man kii ay kóol laa la jaay téléphone. téléphone waaw. foo foo doon jugee. man maa doon jugee parcelle. parcelle. marché nga doon jugee ñëw dans doole. waaw joxe dépense kër ga. waaw lool la demee bilaay. non man euh, en fait dama voyagé woon dem si guddi laa ñëw collectif bi nga xam ne tey ñu ñëw ñoom ñu si gox bi Colobane ñoom ñoo exiger moom mooy les collectivités territoriales ak maires ah, loolu la demee. waaw ah loolu ñu bàyyi gaa yi daa seen doole rek parce que ñu boo xoolee loolu dugg jógee dëkk ba dëkk ay ay jeunes rek a di job jógee dëkk ba dëkk. Mm-hmm. ba loolu leen bàyyi ñu continuer rek seen job xam na parce que gars yi dañoo bàyyi yaay bàyyi papa bàyyi ay njaboot man boo xoolee démb laa jógee village ñëw tey affaire bi ñëw. tabaski ba tey. ba léegi démb laay door ñibbi si tey dama xeere affaire bi boo doon gisoo maa ngi lay toog dama jaaxle lool ak sama. jakarta lan ngeen di ñaan même su leen fiy jëlee fu ñu leen fu ñu leen yóbbu. laa bëgg sax bu fekkee ne ñu fiy jëlee sax ñu jooy foo xale tamit ñu leen fa mën nekk ba sutur daa yóbbu su ab lu daanee doole. Mhm. lool kese la di ñaan. loolu kese ngeen bëgg. waaw loolu rek leen mhm. parce boo xool ñi ñëpp ay jeunes la mais ku nekk da nga jógee fu sori ñëw pour am si dara jox say waajur loolu kese la. jërëjëf ah, donc donc leerlaat ki nga ne moom mooy euh, Ousmane euh, Sonko moom moo fi war a ñëw laal la pour pour leerlaat parce que dafa baax ñu pour ñu leeral ñu wax ne. c'est pas euh, l' état du Sénégal en quelque sorte moom moo ko exigé. Uh-huh. mais y' a un collectif bi nga xam ne dañoo organisé wu fii uh-huh. mm-hmm. ñoom ñoo wax pour gars ak maire pour gars yi jëlee nga xam ne ñoo fi nekkoon di liggéey maanaam dañoo def dañoo mettre les charrues avant les bœufs dañu waroon def communication doog a doog a exécuter léegi c'est le contraire mm-hmm. donc mais tous les problèmes se réunissent autour d'une table fala fala mbiri kiiwee léegi dañ mm-hmm. continuer rek waaw da nga wax soxla da nga wax soxla kaay wax soxla fii Sénégal 7 nga nekk xam nga Sénégal 7. waaw ah, salaamaaleykum. xam nga Sénégal 7 dama koy seetaan waaw. xam nga Sénégal 7. lay ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax soxla bi nga bëggoon wax yëgati tey. waaw man de xanaa vraiment am lu ñu naqari rek parce que vraiment tamit lii ñëw yëpp euh, say bagage yëpp man maa ngi nii Touba laa jóge dama ñëw fekk fekk samay bagage fekk ma fi dara nii laa toll ñu yóbbu lépp xam nga ma la am lu ñu métti lool samay bagage lépp noonu laa ci toll sama sama place fii la woon noonu lañ ko yóbboo ñaata million non ba du ay millions sax ñun ñoom ñuy million bu ne woon million duñ toog fii ci mbedd bi <laughs> ñàkk million moo tax man nag xam nga ku may waxal man Ousmane Sonko laay waxal man mii di wax ak yow dama def sacrifice bu rëy ndax moom yaa may déglu billaa wala ñi ma xam fii Colobane xam na loolu ci man yaa may déglu sama alal ak samay mbokk ñëpp laa wax pour ñu wootal ko parce que lii lii raw nga taxoon nag ñu wootal ko buñ problème yi mel nii ñun ba ñu ku ñu jëlee ci mbedd mi nga nga bàyyi ba solution am quoi mais da ngay seet ay père de famille ay mère de famille nga jëlee ñu xëy nit di waaye di nii wax dëgg yàlla lii dafa metti quoi. mel na ñun yëg yëg mooy le maire. loolu yëg nañ ko mais ñun moom la ñu fal xam nga ñoo ñëpp ñun dégluwul leen ñun Ousmane Sonko dañoo def sacrifice ndax moom quoi ci lu bare bare bare bare ñun sones bi xam nga te loolu lépp moo ñu mën a génne nañu jàppale nañu jàppale jàppale ñu ak nu ñu mën a jàppale ñun moom lañ dénk suñu réew mi dañu def sacrifice bu bari ndax moom man sama alal am ma dara de mais li man ay téléphone laay jaay fii laay jaay man ñi ma xam lépp xam ne dama sacrifice ndax Ousmane Sonko ndax moom kon nag wax ñun fi ndool dañoo rus sax ñun waa Pastef dañoo rus parce ku ñu wax am ñu leen lu ñu teg ci loxoom ku ñu wax nañ waxoo lu woon lii ñu leen woon waxu ñu leen woon kon nag saa waay dañu jàppale benn question laa am pour parce que bu fekkente ne da ngeen ne ci ñi faloon Ousmane Sonko ngeen bokk tey yow kese faloo ko. am na keneen ak keneen ku ko fal. est-ce que bu toppee ku nekk bëgg-bëggam dina liggéey. waaw léegi ku nekk bëgg-bëggam d'accord nañ loolu quoi déggoo ñun ba ñu gunu jëlee ci mbir mi de parce que fu mu ne équipation illégale la quoi loolu xam nañ ko mais mu doon ñu solution tamit nag. bu tey moom dina fi ñëw waa léegi moom ñun moom bu nekkee mën nañu wutal solution moo gën mais sëñ bi xa soxna si xam nga ñun bu ñu amoon lu ñu gënal duñ toog ci mbedd mi. bu ñu amoon lu mais nañu wutal ay moyens yoo xam ne dinañ ko mën a lii mu door ñëw fee jëlee mais xëy suba rek gaan nit ñëw jóge tabaski yoroo dara ah nga nekk suñu dafay ñu xëy suba rek nga ñëw ñu bomba bombardé say bagage lépp nga ne a zéro nii xam nga loolu saa loolu dafa metti loolu dafa metti moo tax bu ñu mënee jàppale ñu dimbale ñu ñu am solution moo gën ko vraiment jërë ngeen jëf ñu leen sant di leen gërëm dañ leen seeraan nag surtout sans wala fi la nekk ak beneen euh, pa imam bi quoi kii daraa mel xam imam dara waaw waaw yooyu yëpp dañ leen di seeraan di condamné yéen Ousmane Sonko nag moom moom moom dañoo si def sacrifice ndax moom. ñuy def sacrifice bëri na bu leen naree topp noonu aussi ñeneen ñun nu ñuy def waaw loolu moom d' accord nañ mais mu ñuy bàyyi xel tamit nag. Ah, d' accord dina leen bàyyi xel alors Matar dañuy continuer ak euh, gars yi rek ci biir euh, marché bi xam naa ni fu mu toll nii gars yi mooy loolu salaamaaleykum. ziar non ah ma jégal la ko acca bàyyi donc gis ngeen ko noonu dañuy continuer rek ci biir maquette bi. voilà donc Matar euh, comme angle bi ñu taxaw nii. il fi un temps. boo tolloo à fële. man waa ji la ma jaay montre fii xam nga man damay wax ne man li may dundee montre 6000 laa jënd seerul waa ji fii la doon toog maa ngi koy nuyu Sémou donc ñoom nag ndeysaan dañaa maanaam xam nañ ne changement war na mun a am léegi mais ñoom manque d'information bi nga xam ne moom la état bi euh, deful wala ñi nga xam ne moom mooy les maires ak waa collectivité territoriale bi ñi nga xam ne ñoo engagé li ni mel ak waa koñ bi xam ne ñoo ko engagé ñoom. communiqué wuñ nag ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñoom ñoo nekk les délégués de marché parce que après suñu paree fii nii dinañ dem jël ñi nga xam ne tey laala moom mooy ñoom ñoo nekk waa collectif dëkk ci koñ bi parce que woo nañ leen a pare am na ay kër xam ne dañ ko brandir parce que tamit neexul ñoom ñu gis seen i doom ne dëkk Colobane yeroo fi màggee fi seen doom mënuñ di génn di fo maanaam le problème est beaucoup plus complexe. que li nit ñi foog que li nga xam ne moom lañ gis. xam si kanam suñu avance tuuti tamit dinañ gis li xam ne mooy les tables yi xam ne dañ ko sànni si côté nga nuyul ma Sénégalais tout d'abord. nuyul ma gars yi pare. sa gars gis naa ñu naan meilleure équipe de la campagne ñun ñun ko joxoon ci élection yi. waaw mais na trophée bi ñëw. <laughs> ni ñuy topp ci live bi donc comme ni nga ko waxee euh, situation bi nii la demee fii ci Colobane ñoom ñi nga xam ne ñoo fi ay ca ñëwal nii Baye Fall bi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. face face caméra. ñu ngi lay ñu ngi lay fay. Euh, tur bi. Babacar Gueye la. ayca Babacar yow lan ngay jaay fii. man ay téléphone laa fi jaay. naka la mbir mi demee. waaw affaire yi de ñun ñëpp ko gisandoo gis nga ni marché bi mel nii. ñun sax xay jeune lañ moom xëy na mën nañoo jàpp ci leneen mais ñi nga xam ne ñoo ñu gën a féete mag day met ci ñoom daal mais ñun jeunes moom dara joomuñu daal lu ne mën nañ cee nekk bi ko dund tamit. waaw ñun téléphone lañ doon jaay waaw. instant bi daal ñëpp gisandoo nañ ni affaire yi mel ñun nag sikkuñu kenn wala ñuy wax kenn dara li ñuy bëgg daal mooy bu ñu mënee am feneen fu ñu teg daal ñu teg ñu fa xam nga. waaw ñu gisaat suñu bopp daal comme niñ ko doon gisee. waa ñu daal loolu daal lañ. avisé nañ non loolu nag moom xamaguma ci dara quoi parce que maa ngi fi doog ñëw nii. ngeen yeewu ñu ñëw commencé dindi. noonu la demee dañoo yeewu rek gis ñu dindi taabal yi affaire ñu nit ñu ànd kook dal daal ñëwuñu di wax dara wala ñuy salteel wala ñuy def dara dañu ñëw ànd ak lépp ci daal di leen déglu ñoom ñi def lii xëy na am na leneen lu ñu dencal daal waaw ñu daal loolu ministre bi war na fi ñëw 15 heures euh, peut-être occasion lay nekk ngeen mën a waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom ngeen di réclamer pour que solution mën a waaw loolu tamit ñu koy wax nee na dafiy ñëw boo gisee ñu bëri toog nii moom la ñuy xaar daal pour bu ñëwee tamit mu wax ñu ñun li nga xamante ni moom lañ mën a dégg ñun tamit ñu wax ko li nga xam ne moom lañu bëgg waaw su ko defee affaire bi soxla bi daal réglé wu daal. waaw ci loolu daal lan yaakaar instant bi di ko xaar tamit mu ñëw. exactement ñan ñoo euh, def mbir mi. non mbir moom kenn mënu laax ne la xam ne ñu ko def moom ndox ñun ñëpp presque ñoo ci am dañoo xëy ñoo rek fekk mu mel nii waaw noonu daal la deme merci beaucoup ok waaw. alors ñëwal ayca waa. ñu préciser que euh, mairie bi la ah, ak collectif bi nga xam ne dañoo dëkk ci koñ bi. waaw pas l'état du Sénégal pour le moment léegi Sonko day def déclaration léegi moom ba yee ndogal lay jël mais na bàyyi xel askan bi tout d'abord ñu bàyyi la nga jël ma bàyyi la jël ma bàyyi la nga kili kilifa. waaw acca maa ngi lay. Eh, maa bu baax a baax. di la ziar. di la Sénégal. set Sénégal 7. nga affaire daal métti nañu tellement que bett nañu aussi wax dëgg yàlla parce que jeune boo xamante ni da ngaa jógee ci événement xam nga événement nekk loo xamante ni si préparation euh, kii bi rek euh, waaj mi rek daa métti. xam nga nga jóge ci ñëw jàpp ni da ngaa da ngaa war a liggéey xam nga nga ñëwaat dalaat lii lii normalement métti na métti na ci askan wi métti na ci jeunes yi nga yi nga xamante ne si ñoo bëgg a liggéeyal seen réew parce que bu nee jeune daa war daa war a liggéeyal réewam xam nga moom loolu la indi loolu la wax ñun jeunes yi ñu taxaw pour jàppale ko ci loolu normalement mu toog dans trois mois mu ñëw indi li ñu lii des fois daf ñuy bett daf ñuy bett loolu. parce que yaakaar bi ñu am ci moom dafa yaatu xam nga jeune boo wax fii muy la Ousmane Sonko Diomaye xam nga ñoom loolu rek war nañ ko xalaat bu baax ñu xalaat Colobane parce que Ndakaaru bu ñu wax euh, marché dëgg euh, boo génnee Dakar Colobane marché amatul parce que lii génne fii génnewul ci ci beneen marché fii li fi nekk ci ay jeunes amul fenn amul ci benn marché xam fii am na maquette baa ngi nii euh, ñi jaay ndugg yaa ngi fii ñi jaay téléphone tout ça même ñi jaay yére dàll ñëpp xam même ki nga xamante ni sax tey boo ñëwoon sa loxoy kese yàlla suñu borom mën na la dimbali ba nga am loo loo yóbbu sa njaboot mais instant yi nit ñaa ngi nii toog kenn xamul looy def mbuusu ndox boo jënd sax yaa ma gën a xam mooy loolu parce que di nga xalaataat ni est-ce mi nan la mën a jëmee ëllëg xamuñu ko parce que comme mel na nii xamuñu ëllëg luy am. xëy na ñëwee boo leen waxtaanee solution dina non xam nga nit ki loo ko bëgg bëgg da ngay wax dëgg parce que dëgg dafa metti xam nga li xew nii ñi fi dëkk ñoom ñoo ko réclamé. waaw loolu am na mais ñun ñoom aussi est-ce que mën nañ leen leen bañal li ñu bëgg. non mënuñu la ko bañal mais mais Sénégal dafa nekk réew boo xamante ni ñetti ñetti kii moo fi nekk ñetti parti moo fi nekk ñi am nan ñi amagun xam nga ak ñoo xam ne ñi ngi bëgg am te xamuñu dina am wala wala wala duñu am ñi am nañ sóoraal ñi nga xamante ne amagun ñi ñi am as tuuti wër ñu xool ñi nga xamante amagun parce que am na ñoo xam ne dañuy daw dépasse amuñu dañuy yeewu seen kër amuñu lu ñu dépassoo dañ koy yoroon table waaw man taawu laa yoroon fii. marchand ambulant nga wala da nga toog fixe bi. man damay damay lépp laa def man damay business rek man sama taabal bi du moom rek laa am man damay liggéey xam nga dépendre man dépendre ma ci benn politicien parce que ku xool li war a xam ne ndaw yi war na war mën a jug ci seen bopp nga liggéey sa nga liggéey sa bopp avant ëllëg say doom parce que nit ku nekk li mu dund bul nangu sa doom di ko dund ëllëg parce que Sénégal nañu xool bu baax a baax xam bu baax li ñuy def parce que nit ku nekk li nga dund bul nangu sa doom di ko di ko di ko dund bul del xool toujours li ñëwagul parce que li ñëwagul mën naa gën a métti que parce que day changé ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax. ci yéen macha allah ok. voilà ñu avancé un peu Matar mais waa ji dafa wax lu am am solo. parce que nee na. Euh, war nañu sooraale ñoom bokkoon nañ si ñu fal Ousmane Sonko. war bokkoon na si ñu fal Ousmane Sonko man sax xaw na posé naa ko question ma ne ko. d' accord est ce que Ousmane Sonko ñu. ëpp seen bëgg-bëgg est ce que dina liggéey. parce que mais nag obligation la waaw obligation la d' mais Matar dès qu' il dès euh, est le premier ministre du Sénégal nekkul le premier ministre de Pastef il est le premier ministre de de tous les Sénégalais donc ça y va de l' de toute toute une nation. comprendre nga buñ ko nanee def ci affaire de partialité rek beneen beneen situation mooy ñëwaat ma bàyyi la nga jël. salaamaaleykum Pape ñu ngi lay nuyu. waaw ah, ñu ngi lay ziar ñu lay fay. laataa ñuy xaar mu daal di ñëw euh, yow lan nga loolu yëngu fii si biir Colobane marché bi. waaw man ci Colobane fii ci marché bi yàgg naa fi de léegi mu def lu mat 40 ans nekkoon fi di yëngu ci mbirum jaay fëgg jaay maanaam yàgg nañ fi loolu nag. Euh, waaw dama ci bokk waaw te ni ma ko defee sax dafa ñaaw parce que dama dama ñëw dem bàyyi sama bagage sama place ñu ko yàq ko li may wax nag at Ousmane Sonko la ak gouvernement ak Bassirou Diomaye Faye nañu xam ne seen jom ak seen fulla ak seen seen seen fit moo tax jeunesse bi ànd ak ñoom te jeunesse boobu ànd na ñoom tey ñoo ñooñu nekk ci mbedd mi mooy ambilaa ñun ambilaa yi ñoo doon xeex ñun la ñu tëj ñun la ñu ñun ñoo amoon lu naqari li ñu gën a metti nag mooy bu ñu nekkee fii Colobane borom magasin nga gis ak kër yi nga gis yëpp ñii dañoo jënd seen kër moom moomuñu kër dañoo jaay kër yi nekk ay commerçant ñii commerçant ñoo leen tabaxal. maanaam pour leeral nga ne que ñu fi def seen waaw am na ci kër yoo xam ne ki ko ñëw dafa ñëw jënd kër gi pour def koy magasin yi ci des borom magasin yi commerçant yu mag yi ñoo leen tabaxal def magasin léegi nag ñi nga xam ne ñu nekkoon fii nekkul ma cinq juróom fukki fi di liggéey nooti xale néew doole moo tax ñu nekk ci mbedd mi ñoom ñooñu la ñoo ànd ak préfet ak maire bi ñu ñu fexe ba ba jël bëgg ñu fa jël la xam bëgg seen magasin yi dox ah waaw suñ comprendre ne. mooy waaw sooy lépp mooy suñ suñ mooy maanaam ñoom dañuy bëgg teg beneen façon de économie daq daq leen fi. maanaam ñoom ñun ñi nga xamante ne comme li ñu wax daal ku kuy kuy kuy kuy raam ba taxaw daal di ko dañuy raam parce que ñoom ñoo nekkandoo ñoom ñoom fii di jógoo ba ñoom suñu yoroon may leen xéewal léegi nag magasin kër yi nga gis yëpp di Colobane kër goo fi gis mu mag moo ko tabax def ci magasin ci suuf wala wala commerçant moo ñëw jënd kër gi def koy magasin ñu nekk Sonko la ñuy yàggee dañ koy xamal ni ko système ba ko doon xeex ba mu ni moom doon xeex ñu ànd ak moom di ko xeex système boobu ñoo koy xeexaat dañ ko bëgg boole xale yi xale yi ñoom la ñu tëj ci kaso yi ñu ne moom la àndal démb moom la ñuy tëj mais na na xalaat nga xam ni moom ña ko doon xeex démb dañoo changé système mais ma ñu xeex parce que képp koy xeex xale yi ci mbedd mi yaakaar dañu am ci moom euh, parce que jomam ak fulaam ñu ànd moom ànd nañoo moom nag mais du moom la ñu àndal Sénégal la ñu àndal waaw kon moom na fexe ba liñ ko kaam bi ñu koy ñu koy ñu koy gasal bu mu ko mu ci dugg. fa nga doon jógee di bu njëkk ko daan dégg bu njëkk. Colobane ay ay bandi mais Colobane ñi fi nekk ay gor yu liggéey xale yu ndaw yu liggéey ñu doon dugg ci gaal yi di dugg ci gaal def lu loolu yëpp ñoo ñeeg fi Colobane am surtout am seen jom di ko def ñu nag ñëwuñu pour defar d'accord nañ pour defar mais xanaa nit boo nekkee fenn nga du fa jël di nga ko wax dara ñu man dama ñibbi sama kër guddi lañ ma woo ñëw daaji sama bagage yëguma ci dara ñëw loolu ñaaw na cantine bii ñu daaji nii def borom def na cinquante ans mën na ko mu nekk fi borom magasin yii fi nekk nii ñoo neexal ñi ko dindi susu nag benn benn gaan bu ñëw fi ñu wax moom na sonko na ko xam ci mairie lee nag adama adama nan soirée soirée adama waaw waaw moom mooy ànd booy mooy ànd ak booy ñëw ci magasin yi leen xaalis leen xaalis bu ñu ko xaalis mu ànd dem ca mairie ba fenn ba mairie ñëw jox ko muy laaj place jàmm non loolu loolu na leer maanaam dafa am kenn ku ñëw di leen laaj xaalis marché yi la nekk léegi moom day ànd ak waa mairie ni mairie la bokk bokkul mairie day ñëw ci borom magasin yi laaj leen xaalis buñ ko jox xaalis mu dem ànd ñoom bu ñuy def lii profité ci yàq parce que li ñu dindi ñun ba ñu ñu ko ko dindi dañ ci boole loxo ne bokku ci man la li may wax Ousmane Sonko bu baax nañu xam ni système bu leen doon xeex am nañu xaalis sàcc nañ alal réew mi yor ko système boobu moom ñu ko waat di ko xeex ndax xale yi bu ko boole xale yi moom na xam ne xale yi ñoo ko fal xale yi dañ ko fal am ci moom yaakaar d'accord waaw d'accord waaw dëggul ma waxuma bu passé ëkkul passé ñu Sénégal la ñuy wax mais moom dañ ko fal pour doomam ak fulaam ak li mu ñoo ko boole ko ci askan bi la xam loolu est-ce ñoo ko bëgg a boole ak askan bi waaw waaw man moom li may wax bariwul quoi parce que fii booy xool ay jeunes rek ñoo fi nekk ay jeunes rek ñoo fi nekk benn paa nekk fi benn maire nekk fi waaw ñun gouvernement bi ñoom jeunes yi dañu am si ñoom yaakaar mais comme li paa bi wax rek mooy dëgg ñi fi maire yi fi nekk ak ministre yi fi nekkoon ñoom ñooy ñëw ba léegi di xeex di xeex gouvernement bi fi nekk te loolu mooy dëgg parce que ñoom ñoo sàcc suñu alal suñu al milliards yëpp ñu ngi si ñoom milliards milliards yi ñu toog buñ ko defal si jeunesse bi tamit lii lii nii du am waaw ah, li paa bi wax mooy dëgg maanaam kenn bañul maanaam tëj nga yëkkati ay nit mais nga jaarale ko si yoon xam nga maanaam foo xamante ne ay nit dañ fa war a jaar kenn waru fa lal di jaay loolu dëgg la kenn waru fa lal di jaay mais tamit maanaam tamit maanaam boo koy def nga ñëw nga waxtaan ak askan bi mais pas di jaay ay doole jaay doole dafa xew yi kenn jaayatu fi doole kenn fii koo fi jaay doole mu fippu waaw ah, mais il faudrait bi xam ne maanaam ministre yi fi nekkoon jël sunu alal nan jël alal jooju nangu ko si ñoom jël alal jooju def ko si askan bi buñ nga defee si askan bi rek li ñëpp dana wàññeeku ba pare tamit mooy wax jeunesse yi tamit maanaam parfois da ngay gis koo xamante ni ambulant la mais li muy yor si loxo bi du mat sax 5000 francs day wër suba bu ngoon mën na am ak marchandise une semaine du jaay dara mais tey jii yaa ngi jógee si àll ba te gouvernement yi pare nañu maanaam pour jàppale baykat yi mais nan nan dem bàyyi. donc la faute nekkul gouvernement bi. mais jeunesse bi tamit am nañ si faute bu metti parce que yow mënoo mënuma comprendre yow jàngoo amoo métier nga jóge nga dégg riiru Ndakaaru rek riiru town bi rek nga jóge sa àll ñëw yow da ngay ñëw fii lu yaas war la lekk war la naan war la amoo foo nekk xam nga yow nga yor loo xamante ne tey jii maanaam tey jii yow nga yor tey jii loo xamante sa marchandise boo ko calculé du sax mat 5000 francs 5000 francs sax du ko mat ah? mais dafa am ñun ñun Sénégal ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal mm-hmm. ñun Sénégal rek moo ñu jiital Sénégal rek moo ñu ñor waaw ah. yàlla baax na le combat continue donc ñu bëri dañuy bëgg a sànni kaddu donc dañuy doxaale rek foofu laala nga ñëwaat dañuy doxaale nga waxaale sa soxla eh, gannaaw mm-hmm. nañu waxante dëgg gouvernement bu ñu wax gouvernement doo ñëw trois mois rek nga commencé sakaasi nit ñi comme nii dafa am lu war a jiitu gis nga nit ñi amuñu liggéey donc bu ñu bëggee ñëw rek bugg a dal ci kaw nit ñi comme ça nii rek mënul sotti gis nga lii dafa am lu ko war a jiitu li ko war a jiitu mooy waru recruter ndaw ñi ñu xool fu ñu leen bugg a soo ñu bàyyi di wax naan gouvernement dañoo sàcc alalu réew kenn fii fi kenn loolu ay ay tuuma laa ci kese mais wóorul kenn fii kenn ku bay jàmbur loolu justice moo koy leeral justice bu waxee ne diw moo sàcc ñoo xam ne diw diw boobu sàcc ne jël na alalu réew mais en tant que justice waxul bul kenn tuumal kenn gouvernement ma man ma jàpp ni ñoom ñoom ñoom lii si seen seen échec la man. seen échec la man loolu jàpp. dama jàpp ne li ñu def nii tegu teguwul si yoon te Ousmane Sonko dañu amoon ci moom yaakaar. loolu laa jàpp merci. Matar en fait euh, dañ koy préciser parce que euh, dañuy jël mbir mi aussi waaw dafa jaxasoo te tey lii wax nañ ne collectivité yi ñoom ñoo ko sàkku ànd ceeg mairie yi ak préfet yi. raison pour laquelle tey Ousmane Sonko jël décision wu ñëw sur les lieux pour mën a waxtaan ak ñoom mais bu fekkoonte ni euh, lu mbir mi moom moo nekk responsable bi il il n'allait pas venir ici à 15 heures pour sekk ak ñoom waxtaan maintenant loolu dafay difficile ci population bi nga bëgg leen ko gëmloo wala nga bëgg leen ko wax ñoom ñëpp pour ñu dégg ko parce que ku ci nekk ci ñoom mbir mi ni mu ñëwee rek noonu nga koy noonu nga koy déggoo mais ñun ñuy véhiculer euh, information yi ñun ñoo koy préciser pour ñu xam mbir mi fan la jóge maintenant parfois nga wax ñu foog ni dangay ngay layal nit fekk du layal nit mais booy joxee information aussi da ngay joxe li nga xam ne moom mooy les faits les faits mooy ñoom collectivité euh, nu mu tuddati euh, ñi nga xam ne ñooy gérer marché yi ak maire yi ñoom ñoo nekk derrière ce déguerpissement ñoom commerçant yi nee nañ xam nañ ne occupation illégale de la voie publique mm. Mm. c'est pas normal mm. mais li ñu leen li leen métti mooy façon bi ñu ko defee ak niñ ko defee ak seen bagage yi ñu yàq ak yooyu peut-être il fallait leur prévenir avant de faire quoi ce soit